ñiy wootewoo alternative ñu mel ni Ousmane Sonko en réalité joxe guñ orientation. mais proposé non mais amuñu alternative amu fi xanaa kay alternance lañ bëgg mais alternative moom alternative fi cest à ni ñu doon ni ni yore ni ñu doon yore con maire yi. Hmm. ba léegi moom la ñu war a yab bi des mooy dafa am benn nag problème bu nekk ci coalition boobu. Hmm. xam nga damaa jàpp ne <laughs> bu fekkee nag ab coalition boo jëm ci élection locale. defe naa ne wax dëgg yàlla ko xam ne dañ koo jàpp ci mbirum détournement deniers publics ci mm. waru ca waru caa nag moom mu di ko sos kooku moom vraiment c'est un problème extrêmement sérieux mm. parce que nag ñooy mën a jàkkaarloog waa Benno Bokk Yaakaar critiquer seen seen yore réew ni yore seen communes yi mm. ne ñu ngi de ñu ngi oh, temps yow sa coalition nit nekk ci koo xam ne moo ko doon dox te moom jàpp ko tëj ko ci détournement dañuy dañuy. ci mbirum d'avance. ci xel maanaam ne ñu ngi koy waxal Ousmane Sonko ba léegi dafa fës. mais non non loolu sax du Ousmane donc loolu waa coalition bi yëpp ko bokk Ousmane Sonko li problème mooy moo ne moom du bokk mu ko ci coalition. Hmm. moo ne woon ñi nga xam ne dañoo bokk système bi mooy ñoom Khalifa Sall ak ñoom Pérez ak ñoom sëñ Moussa Sy ñooñu du ànd na ñoom parce que bu naree ànd moom mi ngi wax te moom li ko nit ñi doon jàpp ne moom lañ ko doon fonke mooy li ne woon dafa bëgg indi yorin wu bees waaw dafa bëgg dindi li fi nekkoon te bon waaye bu fekkente ne nag dafa tey dafa lëkkaloo ñi nga xam ne ñoo fi nekk nekkoon te daan def lu bon kon te moom mu wax ne bu defee loolu moo leen yées kon li ma mën a jàpp mooy bu leen yées est-ce wax ni peut-être maturité politique moo ko moo ko jàpp wala dafa gaaw wax. xam nga mënut a ñàkk mënut a euh, ñàkk immature parce que koo xam ne mu mosoo bokk ci benn combat politique mu bokkoo ci même élèves yi bu ñu daan gërëw doo gërëw étudiants yi bu ñu daan gërëw doo gërëw benn combat la fi ma ne mooy combat syndical des GID mooy loo xam ne mutuñu téeméeri nit. mooy corporatisme pur et dur donc 2016 la dugg ci terrain politique bi kon mënut am expérience bi. Hmm. no boo boole ci nag avec beaucoup de prétention. Hmm. loolu moo koy indil jafe-jafe yi mooy tey mooy tax booy toppi waxam. da ngay mujj yàgg nga ne kii moom jëru sax déglu et loolu moom jàpp naa ne baaxul ci nit politique mm. parce que politique dafa laaj cohérence ce discours dafa malheureusement son discours n'est pas cohérent en rapport ak lu mu wax ci affaire ne du ma bokk mukk ci coalition ne bu naree ànd ak ñi fi ñu yoroon réew mi euh, day mel ni moo leen yées ba pare ànd ak ñoom mm. je crois que loolu même sur la question du troisième mandat wax am naan moom daanaka daga jàpp ne wax ne Macky Sall pour ñu xeex troisième mandat. discours am du crédible. léegi pourquoi encore vraiment je l'invite man. parce hmm. hmm. damay def ñaari ñaari dama koy séparer. Sonko ak Pastef parce que jàpp naa foofu ay xale nga fa yoo xam ne. Hmm. bëgg réew mi ak bëgg a réew mooy seen yitte malheureusement nag jàpp naa dañoo juum ci njiit. ci njiit kon njiit lii nga xamante ñu bëri jàpp nañ ne war na mën a yor réew mi waxu fi dara lu yor mais dima mën naa yor réew maanaam bu Sénégal ku ne mën na ko yor di ah, ah parce que élection moo koy fal Sénégal mën nañoo fal fal ku baax malheureusement nag Sénégal boo xootee nag depuis 1960 ñaare bu ñuy tànn nit ñi moom duñ tànn ña ca gën dañuy tànn rek xëy nag ñi nga xam ne ñoo cëpp xaalis ñoo cëpp coow hmm. ñooñu la fal donc mën naa mën nañ ko fala ah. ça y a problème mais fal ko taxul mu baax fal ko taxul mu baax parce que génne gu fi lu lu lu gën li fi gars doon def <laughs> te loolu la ñu Sénégal li soxla mooy en réalité xam nga 1960 ak léegi am xaw naa yàgg quand même mm. ñun 1960 ñun ak Corée du ñoo tolloo woon développement ak Tunisie ñooñu raw nañu foofu c'est-à-dire li mooy nan la ñu war a def ba tabax réew mu bees maintenant li nga xam ne jàpp naa ne moo ci jiitu mm. mooy li ñuy wax république ñu tabaxal ko Sénégal amul république fi ñu toll ak nguur daanaka moo fi nekk république la ñu war a tax république ñëpp bokk mm. séparation des pouvoirs équilibre des démocratie ñu taxawal ko parce que démocratie mooy askan wi mooy yor pouvoir waaye fii boo seetloo benn waay rek moo fi am pouvoir au Sénégal mais ci république boobu nga wax ni dañ ko war a tabax bu ñu fiyewoo ci déclaration ki nga xamante ne moom la ñu woowee l'homme fort de euh, Conakry ci discours am li waral sax ñu jëlaat pouvoir bi ci Alpha Condé dafa tudd yu bëri ay gabegie wax na ay euh, pauvreté endémique corruption wax na ni dañu war a soppiwaat suñu constitution dëppale kook suñuy mbiru bopp Euh, yu mel noonu su koy wax yàgg ngeen ko théoriser. non mais suñu constitution war nañ ko xoolaat ñun ak suñu de Conakry moom noonu laa ko ak raison bu mu mënti doon. ak coup d'état moom mënut a baax dëgg la jullit ni moom araamale sàngara ni la démocrate war a araamale coup d'état da xam nga sàngara war a su ko fajo ah. boo boo feebaree te di jullit coup d'état koo fajo quel même bu fekkee crise politique dafa am loolu man mooy li ma gëm maintenant euh, ñun waa Sénégal fa ñu raté 1960 la bi tubaab yi demee dañoo waroon a toog penc réew mi tabaxaat geneen Sénégal hmm. tabax institution yu bees démocratie bu bees école bu bees euh, armée bu bees police bu bees loolu la waroon def malheureusement Senghor daa toog li fi tubaab bi bàyyi mu di ko wéyal loolu moo ñu tardel ba nëg ni te tant que defuñu ko dindi wuñ ko duñ avancé. ah mais ñi koy woote woon ñu Ousmane Sonko ñu gëm la war na mën a soppi yooyu waaw ma ma ma ñun ban ci alternative waaw xam nga bu ñu yooyu ba ko ay sénégalais di ma ne ñoom si ànta ju boobu Sonko juddoogut defagul politique hmm. dimbali ma ngir yàlla quoi ñu wax ci Sénégal dañoo gis ni euh, ci ñi koy incarné waaw incarné bu ñuy xeex troisième mandat 2011 kenn déggu ko kenn gisu ko hmm. dara l'incarné wu problème mooy bi ñu ko bi ñu ko rajee nekk opposant hmm. non quand même vous plaît war nañ wax leneen quoi <laughs> ah, mi ci wàllu <laughs> alternative xam nga seen xam nga yow dafa mel ni yéen da ngeen a am Sénégal bëkk démb la tàmbali hmm. mais combat yooyu ba ko Sénégal yi mel ma ma fàttali 1963 rey na lu ëpp 80 personnes Ndakaaru hmm. ay opposant ay ñoom Cheikh Anta Diop ñu tëj leen ci bi ñenn ñenn ñu ñu exilé ñenn ñu blessé leen loolu combat yooyu nit ñoo doon man. mais ba léegi dafa jëmmuwul benn loolu dafa jëmmuwul ba léegi combat yooyu. depuis soixante dix jours pour soppi ko d' accord d' accord jëmmuwul ko mais ñi a bu ngeen leen bëggee suul. di tudd ñoo xam ne vraiment xëy na dañoo réew la mi dajeeg média bari. Hmm. Euh, et vous avez eu la possibilité yéen par exemple ngeen nekk ci nguur war a mën a soppi yëf yi ci bi ngeen ànd ak président Macky Sall wala moom moo topp ci non mais non kenn fi a soppim réew muy président de la République point député dara c'est-à-dire la que maanaam li mën a jubal Sénégal yàlla yàlla na ko yàlla dimbali Sénégal mooy am président bi bu bëgg a soppi réew mi hmm. mais tant que amuñu réew mi du soppeeku du soppeeku d'accord tant ko réew mi du soppeeku dina ñëw ci deuxième partie bi président bëgg a soppi réew mi mënu mën a soppi dinañu ñëw ci deuxième partie bi ngir xool est-ce que am na ci ñoo xamante tey ci langum politique jàpp nga ni seen aqulay taala bis bu yàlla defee ñu jote ci réew mi réforme yeeg combat yi njàggoon mën yëpp jàpp nga ni dañ ci mën a ñëw yaa ngi wax sànq ni programme rek boo mën mais fii fu xeetu programme bu ne ah, nañ ko fi kilifa ah, gi ah, non non mais appliqué ci nit ñi xam nga boo xoolee boo boo xoolee Sénégal li mu bokk na ci li mu raté 2012 hmm. mooy ñu appliquer les conclusions des assises jàpp naa ne boo document yooyu boo ko xool ko hmm. xam ne xàll na yoon wax ne bu ci Sénégal jaaree dana jëm ci kanam Sénégal bu ci jaaree dana gën a am république dina gën a am démocratie dina gën a am yorin wu jub ab école am dana bees ay hôpital ay fajukaayam bees malheureusement deux mille onze deux mille douze bi nga xamee ne ñi ngi dem élection présidentielle ñi nga xam ne ñoo porté woon que euh, nam tuddati assise nationale bi bi ñu faloo lañ ko noppee tudd or man li ma jàpp mooy yoon woowu yoon gënu ko gaaw kon li ma jàpp mooy lan bis boo gisee ay sénégalais yoo xam ne ñoom fas jaayante nañ ne bu ñu yoree réew mi daañu appliquer les assises nationales xamal ñooñu bu ñu faloo daañu soppi réew mi malheureusement bi nga xamee ne élection am na 2012 waa Benno Siggi Sénégal ñi àndoon ak Moustapha Niass bi bi alternance amee daanaka waxatuñ ci assise nationale waa Benno Tanor la wasaalika naka noonu Macky Sall mi nga xam ne moom la ñu fal président tuddatu ko kon encore une jàpp naa ne yoo amul yoon wu gën a gaaw ñu jël programme assise nationale ba sénégalais yi gën koo xam tëggaat ko ba mu gën a bees yeesal ko yokk ci yeneen bu ko defee loola ku falu ñu ne la lii moom moom ngay def ci wàllu soppi institution yi soppi ni ñu yore réew mi yàpp naa ne buñ ko defee Sénégal mën naa jéegu jéegu yu réer réer yi ci di diir bu gàtt. ndax ñi nekk ci ku jégi fi mu ne jamono yi gis nga kenn koo xamante ne xëy na. non am na ci wan na am na ñu yéeneewu. am na am na na ci am na ci ñoo xam ne am nañ yéene bi. maintenant euh, li am